asalaamaaleykum moom mbokki internet Public TV ñoo ngi amaate mbégte ak kontante di ànd ak yéen comme niñ koy waxee saa su nekkee tey jii nag dañoo fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moo doxoon démb diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang gis nañu procès bi euh, li ci jot am renvoyé nañ ko ba le 16 euh, gis nañ tamit ay confrontation yi amoon diggante ñi nga xamante ne ñoo bokk ñoo bokk ci moom ak policier yi euh, li nga xamante ne tamit Mame Mbaye Niang toppee na ko ak li nga xamante ne moom la ci. bi procureur yokku mooy faux et usage de foo documents administratifs ñu fas yéene waxtaan ak askan ñu wax ñoom naka lañ lañ la ñuy jàngatee ci mbir mi ak li nga xamante ne la ci procureur yokku tamit la naka nañ ko gisee ak seen jàngat ci lu ñu mel ne lan la léegi léegi incha allah. Sénégal daal kenn xamatul ban dëkk la Sénégal est une véritable pièce de théâ de théâtre lu tax ma wax loolu mooy man Sénégal laa mës gis ci réew ñu lay tuumal ni da ngaa dara. yow mi ñuy tuumal ne da ngaa sàcc vingt neuf milliards wala bokk nga ci ju ko sàcc weddi woon ni loolu am na de mais da nga ne ki nga wax ni moom moo ma épinglé du kooku keneen la corps bi nga wax ni corps de contrôle bi nga wax ni moo ma épinglé muy euh, IG bi bu lapsus bu nekk mën nañ ko woowee lapsus mën nañ ko woowee njuumte bu Ousmane Sonko wax nga ne du IG IGF la te yow yaay yóbbu nit ci yoon maanaam suñ nekkoon dans un pays normal et normé Mame Mbaye Niang heure bi waru ko woon fekk ci biti sax bu muy am possibilité wu di plainte kii que ce soit je pense que Prodac depuis 2018, mille dix huit c'est ci la coow li judd boobu ba léegi Mame am il ne s'inquiète même pas procureur woowulu ko kenn woowulu ko te du ci moom il y a combien de rapports de corps de contrôle Khalifa Sall rakku Macky Sall fii lañ ko doon jiñ six milliards bi nga xamante c'est ci ay njuuj njaajam jox na ko Franck Timis procureur de la République il se permet d'ouvrir une nouvelle procédure bu wax appel à témoin loo xamante man en tant que juriste mosuma ko gis mu appel à témoin et pourtant le dossier Sonko saisir le juge d'instruction à travers un réquisitoire introductif Le juge d'instruction journal le dossier pour une information judiciaire ba le tout euh, Sonko en tant que journaliste information notification bi du en tant que tel un par droit ñi def droit xam nañ ni loolu su fekkee moo am ak la war a remplir li nga xam ne mooy convocation bi pour mu mat am na loom su ko liiree mu xool ni loolu ça vient du procureur loolu am na beneen tànk boo xamante ni Ousmane Sonko moom lay taxawee droit may na ko pour ñu def droit laay wax de voilà. si deuxième erreur bi mooy bi ñu demee di yóbbu convocation bi dañu wax ki ko déchargé ñii ngi gardien am la ñii ni neen chauffeur am la voilà <laughs> ñoom la engagé mais li ñu jot si information nee nañ gardien bi nekk ci kii bi moo déchargé li nga xam ni euh, convocation donc fofu dafa am <laughs> quelque chose un peu paradoxal niñ ko mën waxé parce que dafa am ay affaire yo xam ji su fekkee ni nit ki euh, da koy convoqué ak li nga xamni ne droit mom la mom la digle si naka lañu wara convoquer a convoqué koo ji dañ ko porter plainte dafa am ay normes ak ay règles yo xamanteni ji bu ci manquer rek ki nga xamni ne cible bi wala ki nga xam mom lañu convoquer convoqué ay avocats mën nañ ko wax ni ko bul déplacer yo tax à quel que soit euh, leur rang et leur ethnie sociale leur religion mm, dal parce que dëkk bi ñun ñoko mom ñoko boko tamit nañu woté dal dox ci euh jamm moy lepp ci la jamm jamm ci la xaj euh, et je lance un appel au président de la république manam mu bay yoon def liggéeyam que euh, procès bi mu baña politique mais manam na yoon def liggéeyam Ousmane Sonko suko ko yoon mu dem wuyu lu ko yoon may mu jël parce que ñun ñoo bokk réew mi ñun ñëpp parce que c'est dans la liberté la euh, la lépp xaj euh, soo amul liberté munoo dox ci jàmm tamit. parce que ku ànd ak Macky Sall lu la neex nga def ci réew mi du Mame Mbaye Niang kese mais l'ancien directeur du COUD Cheikh Omar Niébé Anne fii la taxaw au vu et au su de tout le peuple sénégalais mun a jëndee na kilo ñebe quatre mille cinq cent loolu yow en tant que citoyen sénégalais nag certes que dund gi metti na trop tar na trop les prix ont pris l'ascenseur produit yëpp cher mais kilo ñebe quatre mille cinq cent déggoo ko fi dégguma ko fi té après mujjul fenn fan la mujj ludul mom tamit mu dem di porter plainte ay journalistes d'investigateurs ci mel ay ñom Pape Alé ak ay ñom Mody Niang di leen yobbu procès donc fofu la réew mi toll manam soo nekkee état su fekkee tu es un voleur buñu ñu épinglé la jàppale la main dans le sac mais tu es plus à l'aise tu es plus libre que ñi nga xamante ñoy ñooy dénoncer sàcc yoy tey rapport Covid bi euh, Cour des comptes produire fan la mujj y ministre 10 ministres ñu leen ciy cité fan la mujj il ne s'inquiète même pas pourquoi il ne s'inquiète même pas parce qu'ils sont avec Macky Sall donc loolu aussi je pense que war na jot Macky Sall xoolaat boppam ci anam gu muy utiliser justice bi ku andut ak moom mu créer dossier complot mu créer ay dossier surchargé ko pour rien que pour liquider le politiquement mais ku ànd ak moom defal lu la neex mën nga détourner l'argent du contribuable il ne faut pas s'inquiéter parce que du mujj fenn loolu nag sénégalais yi mënutuñ koo nangu ci réew Ousmane Sonko li mu def démb ñu bari mën nañ ko jàppee euh, dafa dafa dafa dafa jël engagement boppam wala dafa def euh, lu ko neex non loolu su amee justice sénégalais amul nii ma sàmb nii ma demb la justice elle est équitable pour qui que ce soit la justice elle est là pour tout le monde amul président amul Sénégal de lambda amul baykat bi amul jaaykatu gerte caaf bi la justice elle est là pour tout tout le monde au même pied d'égalité il faut qu'on sache ça léegi ci li nga xam ni moo jëm ci euh, Ousmane Sonko demul dem du dem lutax demul loolu lepp c'est des questions yo xam ji ñi nga xamni ñom ñoom la dossier bi nek sen seni loxo muy justice bi ñom rek ño ci mëna trancher ñom rek ño ci mëna wax lo xamante ni ji euh, lu lu lu yellu la wala lu yellu ñun dañuy observer rek commenter joxe suñu point de vue wala analyser juste fofu lañuy yem li nga xamni mo nek ci biir dossier bi wala li nga xamni non lañ ko wara chambrer ba trancher li nga xamni lan moo tax Ousmane Sonko wuy jiwul loolu justice bi mom moko ko justifier bu ko defee li nga xamni tamit mo jëm ci convocation bi le 16 inshallah ah wait and see comme ni ko anglais yi waxee nañ xaar ba xam est-ce que dañuy yóbbuwaat convocation bu bees ou bien dañuy dañuy dañuy euh, waxat Ousmane Sonko mu ñëw wuy ci lu ci man di am lolu ñëwagul nañu bayyi euh, li ñuy wax euh, comme dal li ne ci kanam rawuli bët. maa ngi lancé appel à tous les jeunes aussi que ñu ànd ak retenu parce que rew mi ñun ñoko bok parce que quel que soit l'alpha ñun ñëpp fi lañuy yéwo fi fii am tamit. te jàmm lañ xam jàmm si jàmm la lépp xaj mbokk internet public tv dégg ngeen li nga xamante ne moom la ñu wax nee nañ que ni li nga xamante ne moo dox ci Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang na ci justice si def liggéeyam waaye li ñuy naqaru lenn la mooy yokkute bi nga xamante ne kii di procureur yokku na ko ci dossier boobule ñoom a gis nañ ni moom ma dafa waroon bàyyi li nga xamante ne moom la koy Mame Mbaye Niang di toppee mooy diffamation ñu yóbbu ko si yoon ñu xoola ba xam moo Ousmane Sonko mooma dina ci indi ay preuve bu ci indul ay preuve tamit yoon a def liggéeyam waaye waru ci woon yokk dara wala mu ci wàññi dara lii la leen indiloon loon ci débat boob lee di leen fàttali ni sujet bi doonoon na bi nga xamante ne moom mooy procès diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko te procu Mame Mbaye Niang toppee ko diffamation procureur yoo ci faux ak usage de faux de euh, document administratif ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen dox di daje ba beneen incha allah